chers fidèles internautes maa ngi leen di nuyuwaat di leen diyaar di amaan mbégte bu baax a baax Euh, jëndoo ak yéen ci seen chaîne leader bi lee di Equivox TV comme ni ñu koy defee à chaque fois lépp li nga xamante ne rek actualité la bu ñeer réew mi ci kàttanu yàlla dañ leen koy euh, toppal euh, dalal ci nag ñoo xamante ni dinañ ci mën a waxtaan ak ñoom tey nag ma am mbégte vraiment ak plaisir dalal koo xam ni kenn dootu ko présenter Sénégal muy yi borom Feeling Dakar di sama xarit tey nag moom laa seet si waxtaan ak moom tout ce qui actualité tout d'abord balaa ñuy xuus dañ koy daal di nuyu ziar ko. bàyyi ko mu nuyoog ñu ngi seetaan à travers Equivox Jimbori maa ngi lay ziar bu wér. oui maa ngi lay nuyu Bintu di nuyu sa gars yi nga àndal di nuyu téléspectateurs yi nga xam ni dañ leen di seetaan yéen wax dëgg yàlla euh, di nuyu képp nga xam ne yaa ngi may bëggee di nuyu bu baax. sama euh, fii nga ma fekk suma xarit bi Mamadou seen ñu yàgg trop muy sama waayu bopp xam nga ñu yàgg trop xam nga ñu nuyuwaale jogay xam nga moo sol lu weex li lu weex fur li jogay ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama gaay waa waaw walla rek waaw. ci ni nga xamante ni rek noonu la réew mi jamono ji di doxee à travers TikTok yàkkante bi waxante lu ñaaw bi tey ban remarque nga ci am walla ban gis-gis nga ci am. waaw mais ama réew mi moom yàqante bi li ko indi mooy euh, euh, ga boo yónnee yàlla si sa noon da ngay yàkkamti quoi nit ñi léegi ñoo yàkkamti wax dëgg yàlla parce que tey sooy set réew mi. Euh, danga daan toog sax di gis ay kakatar muy dox nii mais gëj ngaa gis kakatar ndax nit ñi koo si gis tey mu bëla bu subaa mu weex ñii di zone ñii di ñuul soppeeku bi mel ni tulleeg maale ba pare yàqante bi li ko indi mooy dama lay mere mënuma la kaa wax am ba pare réew bu demee ba nga xam ni dafa am ay espace ak ñu nga xam ne spécial li ñuy liggéey mooy yàq nit mais boobu réew kay ñoom ñoo njëkk a dugal yàqante si seen bopp am na ñoo xam ne yàq nit rek la liggéey da nga leen woo waaw waxal ma ci diw dëbbal ma ko mu ne la non bàyyi ko ak man dem ratatatatat yàq deru ko nit moom saa booy yàq deru nit sa der ngay yàq dëkk bi moom loolu moom du kaa waxal leneen quoi wax dëgg yàlla politique beeg yëpp léegi politique boo xam ne nii sax euh, toppatuñ sax leader euh, toppatuñ sax programme leader la ñuy topp ku si nekk naan kii lii la kii laa la te dama la bëgg a xamal benn affaire gis nga Abdou Diouf bi mu fi nekkee xamoon na ci Ablaye Wade lu bëri est-ce que mus nga dégg mu weer Ablaye Wade Ablaye Wade xamoon na ci vie privée Abdou juuf lu bëri te ñoom mosuñoo waxalante lu ñaaw dañ daan yem ci politique kese politikoo soo biisoo mbalaxoo yëpp léegi yàqante der la ku la daqa yàq der moo la gën a doxle parce que réew mi ñaar ñoo fi nekk wutkatu buzz ak wutkatu vie wutkatu buzz day seet fu mu bësam yokko wutkatu vie mooy yenn internet yi nga xam ne nii bruit la ñuy bañ ñoo raw mbooti waañ yëngal rek ñu yore caméra ñëw commencé la jël kon dëkk boobu moom nan lay demee yaakante moom foog mu tey boo gisee ku mel ni Fouta Tampi ku ne xam na ni yàq na Ousmane Sonko lu ne ci àddina keroog ñu gis ko mu taal live am supp jébbalu nan nga gisee loolu. non xam nga Fatou problème bi mooy ñu ko joxee trois cent mille mu mel ni kuñ jox trois cent millions. moo lay wan ni wax dëgg yàlla Fatou mi euh, dese nag yëngal daal wax dëgg yàlla sama jigéen la nag mais dese nag yëngal man dama rus sax wax dëgg yàlla non tey xam nga nit lépp lépp loo nekk dañ ci war a dëgër parce que ñàkkul ñu xam ni moo leen influencé ba ñu dem bëgg pouvoir bi moom ñooñu mu doon influencé tey buñ ko gisee mu def nii mu def bu ëllëgee dina am ku nekk ci dëgg ko xam ni day nekk ci dëgg ba pare nit ñi defa ni comme faatu la fekk bokkut. xam nga tey ma wax la benn affaire ñàkk bañ a euh, gis boppam ci pouvoir suñ ko waxee loolu amul parce que tey nu mu mel pouvoir bi moo ko def xëy na moom mi ngi leen di xeexal pouvoir joxu ko dara mais am na ñu koy jox dara ngir pouvoir xëy na wala boog loo topp ay ati at tey jii benn cent 300000 buñ ko jox ci si waa Pastef faatu boo ko laajoon fu Pastef nekk xamu ko xamu ko de boo ko ne woon fu Pastef nekk est-ce que dina la ko wan du la ko wan parce que xamul lan mooy Pastef wax dëgg yàlla xam nga lu mu xam ki kay jox kon ki koy jox la xam bu dee ñu la joxee rek nga génn ci li nga nekkoon kon ka yow gëm kon dafay mel ni yow gëmoo dara wax dëgg yàlla su doon man maay moom fi ma nekkoon dama fay nekk parce que faatu opposition la nekkoon mu jekki-jekki dem pouvoir ñu jékki-jékki gisaan muy tagg Ousmane ko loolu dam nit daal vraiment dafa war a mel am benn couleur mais nit koo xam ni ah bu fekkente ne yow buñ la wanee xaalis rek nga soppeeku soppeeku xaalis nit yi tamit dañ naan amoo couleur parce que àddina juróom-ñaar képp koo gis mu bëgg xaalis wala mu bëgg daraja kooku bul ko nattee comme nit ko correct nit ñi gën a nekk nit yu nga xam ne correctuñ ku bëgg xaalis ku bëgg daraja xam nga bëggum njiit ba mu ëpp te kenn jiitalu la xam nga ngay nopp ku la nobul ñoo ñëpp si xeetu dof la boo ko daal wax dëgg yàlla boori ba xam ne euh, amaana euh, maanaam li nga xamante ni moom la doon xeex gis bu parce que gis nañ ay ñoom Coura Macky ay ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom la bokkaloon combat bi ku ci nekk yaa ngi ci jàmm wala jox na la nombre tànk mais moom boobu ba tey gisul boppam ci li nga xamante ni moom mooy parti au pouvoir foofu laay waxee. Euh, moom. Euh, même dara lu waay di dugg yaa ngi dégg yaakaar nga ci dara mais euh, ñun lu ñu baaxoo ñun fii Sénégal ak lii suñ jikko ak liñ donn si suñu maam yi dont da nga doon dàq dara gisoo ko yaa ngi dégg da ciy wow kongo parce que gëm dara ba gisoo dara moo gën bañ a gëm dara léegi gëm-gëm googu mu amoon ba ci ba topp ci même bu ci amul dara dafa war a toog parce que même bu fa déplacé demaat fee du am fii du am fee du am dara wax dëgg yàlla parce que am na fu am na fu ko réew mi di xoolee quoi wax dëgg yàlla tey jii mun nga dem sax mun nga topp ñoom Macky Sall ba Macky dem keneen ñëw gis ni yow yàgg ngaa sonn ci parti bi tey jii am na ñoo xam ne da ngay sonn ci dara jëriñu léegi am na ñoo xam ni doo sonn rek jëriñu dernière minute la ñuy jëriñu léegi boo bokkee ci ñu yaakamti di wax noo bintu ñoo bokkoon euh, gëmandoo li am na ci oto am na ci kër man aw ma ko ci ba mu tax nga yaakamti tey mun nga jël trois cent mille perte trois cent million Macky Sall mun na bañ a jox Fuuta xaalis beneen président ñëw mu am ci lu ñoom kura Macky amut du dëgg mais euh, pour man daal sawkatu lal daal fu ñu la seen na lal ba lóoru toogal benn place ñu xam ne da ngay toog benn place mais tey nga dem ci opposition suba nga dem ci pouvoir mais euh, kuy def bu naqaree nga daw buy neex doo ko fekkee waxa rek man de man moom su ma gëmee ni dama lay gëm nii rek te du ma gëm nit projet bi nga yor laay gëm gëm ni bu ëllëgee lii samay sët ak samay doom ak ëllëgu Sénégal mën nañ ci tekkee ma topp la mais du ma topp nit pour sama poos parce que ñi topp nit ngir poos moo tax ba tey 1960 ba léegi ñu am ñu xam ni dañuy xoju di làkk français musu mënuñu defar kir dang dëgg yàlla waxa rek ba bare da bu amee ñuy dof ah, ñuy dof lu am ñu leen di jàppale ci ndof gi tamit parce que tey am na ñu bëri ñoo xam ne moom dañ koy xool sax di wax femme bi wérul di ko di ko traité neneen nu nu mu leen neexee yow même bu nit ñi di wax wéruloo wéruloo nga wow ci benn affaire rek bëgg ko bu yàggee dinañ xam ne ah weñ dee na soowkat mais du xaroom da koo bëgg rek yaa ngi dégg lool la quoi mais keroog daal lu ma gis ñu def noonu loolu rafetul quoi wax dëgg yàlla pour man bu ma amul woon trois cent mille yi ko jox mu woo ma dëggu si sax man dinaa fexe ba wut ku ma ko ko quoi pour mu bañ a def noonu mu def wax dëgg yàlla parce que man dama si rus parce que sama jigéen la